njabootuk Cheikh Mouhamadul Fadal gi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi yépp ci ndimbal lu rëy lii nga xam ne am nañu ko sa waay jur wa de Cheikh Mouhamadul Fadal nit dafa ñëw ci moom daal di nuyoo sëriñ bi ne ko ndaka yitte yi mu ne ko bàkke mi ngi metti rek ñuy muñ bi ne ko toogal nee na mu toog jotaay bu yàgg kanañ ñëw nuyoo sëriñ bi ne ko ndaka mu ne ko maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mbooloo mi ñëw di nuyoo ziar bi ñuy joxee lu ñu ziare jox sëriñ bi sëriñ bi jox ki doon wax ne maa ngi sant yàlla lu ñu siyaare jox sëriñ bi sëriñ bi jox ki nga xam ne mu doon wax ne maa ngi sant yàlla ba yàgg ki ne woon mi ngi métti ñu ñuy muñ ne ko sëriñ bi man nag mu ne ko del toog rek muy métti rek ngay muñ sëriñ bi ñoo ngi sant bu wér a wér ñu ngi koy dugal ci sant nga sëriñ Bay Jaxate waxoon sëriñ Tuubaa ne ko sant nga kat sant gu kenn santul waaye yëgal ni it samay gi tuutul sang bu nekk yàlla ay yëf la ko jox yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la jox bu yàlla doonus ndaw ñu xam ne yaa ko jël sang sa des fa bii yëfam seddoo ko jël moo yow mi jël jëmb ji noo koy cante xanaa di cant kay wëreelu cant santal santaane liggéeyu sant te ko la sant rek na ko sant mbàkke ñoo ngi sant bu baax kaddu yi rek laa ne woon naa ko yëkkatil sëriñ bi tijjil ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Muhammadul Fadal asalaamaaleykum Serigne Mourtala mu ne mi ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp maa ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk bàyyiwuma kenn di am mbégte mu rëy a rëy mbégte moo xam ne tawféex ju ànd ak tawféex joo xam ne ci bisub tey jii nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal moo ñëwoon ci daaraam ji nga xam ne séqu ko kenn moo ko moom kon nag sëriñ bi ñu ngi lay jottali nuyoo sëb sëriñ Seex Muhammadul Muntaxa Xadimal Mustafa di ñaan yàlla sunu borom mu yàgg fi téwéen li mu yéenee liggéey ci sëriñ Tuubaa lépp mu jëf ko ni mu ko bëggee te ñu ànd koog moom ndax jëmm la joo xam ne saa yu doom jóge jibee rek ci taalibe yi sa taalibe ci Serigne Touba ak sa bëgg sëriñ Touba ak sa wóolu Serigne Touba ak sa sopp Serigne Touba lu ca bare bari dana dolli mu ne kon nag mu ne ko am nag kilifa goo xam ne noonu la mel ci ñëpp nun ñëpp nan bokk di ko ñaanal mu yàgg fi lool mu toog a toog rek ba mu sopp ko yal na ko yàlla def ci barkeb Serigne Touba. moom moom moom moom daal jëmm la joo xam ne ji. moom daal jëmm la joo xam ne ji. Serigne Touba rek moo nu ko fàggaloon denculoon loon nu eh, taw feexee nag. nu taw feexee nag. nu ànd ak moom liggéey bii. kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi noo ngi lay siyaare bu baax. di la jottali nuyoo njabootu sëriñ Falilou gépp muy sarak yu baax yii. muy góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ak sa set yu baax yi ak sa bokki taalibe yu baax yi ak bokk yu baax yi bàyyiwul kenn ñëpp a ngi ñu ngi leen di nuyu ci rek Mbàkke di am mbégte mu rëy a rëy rëy ci man ndax barab bii Sëriñ Saalihu Mbàkke yal na yàlla yokk ay leeram moo ko joxoon Serigne Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadal mu jaare woon ci sama loxo Serigne Modou wax ma ne ma téel ma ko saa yu ko soxlaa danaa la wax ma téye ko ab diir mu ne ma pakk yi li muy bari bari sax sëy boo nga jël lépp yóbbu ko may naa la ko ma ne ko man day mbàkke loolu mën naa ko waaye nag dangaa jaboote. naa naa ci jël rek. li ma doy. li ma doy. muy barab bii tey nga ñëw sëriñ bi. nee booba fii yépp day booba àll la woon. mu nekkoon kon nag. ba mu tàmbalee liggéey bi. jàkkay seng laa fi defoon. alaaji Mouhamadou Lamine Baara. moo ñëwoon teg si xeer wa biñ koy ubbi it moo ñëwoon julli fi takkusaan. ay fan yu néew. ma tàmbali daaray alxuraan ji mu jàkkaar lool ba ma koy tàmbali damaa waxoon ne lii may tàmbalee liggéey day du procès fas naa yéene du ma ko yëgal kenn waaye ku ko dégg nag ba def ci saw ñàkk alhamdulilahi rabil alamin bu ñuy def ba daara ji yegg jàkka ji am taalibe bu baax bu amul taalibe ma wax ko mbirum liggéey bi mu ne ma danaa la fa defaral jumaa ji it na nga ko bëggee nee mi ngi jaar ci seex mbuub menn nee ba yàlla dogal lii tey mu ne kon nag liggéey bi nii liggéeyal sëriñ Falilu fii defe woon naa ne sëñ Fallu nanguwu ko waaye xam naa ne nag sëñ Fallu nangu na ko ndax yaa ngi nii toog soo fi ñëwut woon day danaa xam ne liggéey bi nanguwu ko mukk waaye ginnaaw ñëw nga fi nag mën naa waat ci alxuraan ne liggéey bi ma fi doon liggéey sëñ Fallu sëñ Fallu nangu na ko mu ne kon képp ku fi teew na sant yàlla boromam sant sëriñ Falilu ñaanal sëriñ Abo mi yàlla yàggal ko fi lool ya mu yàgg ci jëwriñam ñaanal jëwriñam Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Mahamadul Fadal ak ki yore kaddu kër gi di sëriñ Abdul Fatah yàlla na ngeen fi bokk yàgg lool te wér moom daal ñun ñëpp daal sa laxasaayu nanu topp ci sa ginnaaw rek fas yéene itam foo geesoo rek gis nu loo bëggit rek wax nu nu nekk ca loola amuñu lu may yow yaay sunu kilifa yaay sunu royteef yaay sunu yaakaar teeg tey kon nag bis ni ki tey mboolem ñi fi teew ñëpp foo ay man a jógee ba dikk mënumaa lim ñëpp de waaye mbàkkeen rek li ma lay xamal ñoom rek mooy na aajo yëpp faju rek ndax ngan gi dafa yàggul sax moo tax xumbewut na na mu bëggoon mu mel ni te dama ko waajut itam waaye nag in ab tàmbali laa ko def rek insha allah su dewee nee ah, yaakaar naa ne ah defe naa day ah dana ëppi loxo de insha allahu taala ndax luy tàmbali lu ne ak njëlbeen daa war a sew rek nee ko nag ñaanal nu mbàkke ci darajey Cheikh a Fadal ngan gi bañ a dakkati rek at mu nekkati nga dimbalee nu ñëw fii ci sa kër gii ci sa njaboot gii ak sa taalibe yii seet si leen yendoog ñoom ba ngoon jot su ma sañoon sax da ngay fanaan waaye ñi mu ko wax nag waaye xam naa beneen yoon boo ñëwee moom insha allah noonu lañ koy fase du la bàyyi mu ngay doon dem mukk ci àddina da ngay bët set ñi ñi ñi waroon a siyaare ñëw siyaare la foo ay mën a bàyyi ko ñëw siyaare la kon nag sëriñ bi am na mbégte lool li ma bëgg a wax lépp mënu ko wax ndax mbégte rek mu àgg ngan gii ñu baree bare jàpp nañ ci waxuma ko ñëpp sax waaye nag. ko ñëpp sax nag. waaye su ma ko waxoon dëgg-dëgg. kon dana ëppee nii. waaye lii nag Mbàkke dama koo def mu di ab tàmbali rek. ñaanal nu ci barke Sëñ Fallu rek. nu def ko ay at yu bare bari ci kanam. nga ñaanal njaboot gi. rawatina jigéen ñi nga xam ne. ñoo nekkoon ca waañ wa. ba ñu xëy démb ba tey ñu nga ca waañ wa. ñaari sëñ Modou yi muy sëñ Modou Mbacke sa moom sëñ Saliou ak sëñ Modou moom sëñ Murtala ñooy jëwriñ yi ak seeni rak nopp luñ ca guddi nopp luñ a bëccëg di soññee rek di toppatoo gan ñi laaj naa nag sëriñ aboo ne ko ndax lépp baax na mu ne ma lépp baax na macha allah kon nag Mbacke yow lii kat du nun yawa de nun du nun de amunu dara mënul dara lu neex ci ngan gi Mbacke yaa ko fi indi boo boo boo lépp na toll rek. soo newoon lépp na mel nii rek. waaye nun amuñu kattan suñu bopp. amuñu doole. waaye boo nu ñaanalee nag ci barkeb Sëñ Fallu daanu am kattan daanu man daanu la mën a jëfal. kon nag mbàkki lii rek a doonoon kaddu yi. maa ngi jéggalu jéggalu képp fi teew. ni ñaanal ñi fi teew ñëpp rek. sëñ aboomu Cheikh Mouhamadul Fadal mii faj aaju yi fi nekk yëpp wéral yaram yi nu mucc te am xéewal te gudd fan te wér ba mën a liggéeyal sëriñ bi rekk nag ndax yoonu murit moom ñaq ak ñuqi ñuk buñ la laajee nga ñuqi joxe suñ la liggéeyloo nga liggéey ci ba ñaq suñ la ca yónnee nga ñukk daw ca yónnent ba loolu rekk mooy yoon wi kon nag Mbàkke noo ngi koy ñaanlu rek ñoo ngi nii noo ngi yeesalaat sunu taalibe di feddali waaleel képp ku fi teew rek ak foo mën a bàyyi koo waa Ndakaaru yi boo gisee ñëwuñu ci man maa leen ko waxul rek waaye sëñ Modou Ndiaye mi fa la bàyyi koo ndax tabaski dafa weesu di door a weesu te dafa yàggul te ma yërëm donga yi rek ci fitna yi coono yi te jamono ji mel aw meloo waaye su beneen yoonee insha allah lépp dana gën a baax nag nu ñaanal jàmm ci réew mii ndax nun kat Sénégal la nu am amunu feneen ci rek la nu am ñaanal jàmm am fi ñu ngi am jàmm jàmm rek moo xaj ci doomu aadama waaye lu dul jàmm day xajul ci doomu adama doomu aadama jàmm dong nga xaj ci ñaanal jàmm am jàmm ju neex jàmm soo ko amee loo bëgg a def rek da nga ko mën a def waaye su ay amee wala fi yaasu rek billaahi ndax mbàkke boo ñaanee ci barke Cheikh Mamadou Fadal jàmm dana am Sénégal gii ak bu Afrique ak bu Asie Europe Amérique ak boolum continent àddina bi yëpp boo ñaanee mbàkke ñëpp danañ am jàmm ci barke Cheikh Mamadou Fadal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi fi daje mbokki taalibe yi sëriñ ahmadu rafaay ne mi ngi leen di jottali kàddu sëriñ abul baraka mu jëm ci seex muhammadul murtada mii nga xam ne moo ko yendoo tey sëriñ baa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di ñaan sunu boroom ci barkeb sëriñ fa Fallilou tànk yii nu fi ñëwe woon ak tànk yenu fiy delloo yépp sunu boroom fajale ñu ko sunuy xaajo di xamal sëriñ Mourtada ne ko lii mu ko ñaan yal nañu ko bokk fekkewaat déwén fas na ko yéene yal nan ko teewe nun ñépp ba kenn ku ci nekk te kenn ku ci nekk la lu mu mënoon ren su déwénee mu man lu ko xëpp di leen xamal ne diggam ak sëriñ Murtada nag yal na gën a yàgg waaye léegi tey mu am ay fan ba ñuy tàmbali di jaxasoo noo am xamoon nañu lañu bokk waaye ba ñu doxee ba mu amub diirit sëriñ Murtada mii du dugg ci lenn lu mu waxtaaniwut ak moom te lu mu ko ca wax moom dool dana ko ca doy kon mu ngi leen di seereel ne sëriñ Murtada lim mbokk ak moom jërul ma di leen ko wax waaye ab xaritama de ni leen yàlla boolee dëkk noonu la leen déggalee xat-xati jamono rek muy jàpp bis waaye diggam ak moom jóge gu muy jóge fa këram ñëw fii ci kër sëriñ Mourtada du lu ñuy jàpp far bis lu sax la kon ñi ngi koy sant bu baax di soññ ndaw ñi ñu xool ci doxin woo wii ndax nee na kat ànd ba la muy amub diir lépp kenn musul taxaw ne kii walla kaa lépp rafet na ñi ngi sant sëriñ bi bu baax di ko xamal ne ba mu koy laaj ndax lépp baax naa am ndéet ne lu lépp baax moom yomb naa xam ndax foo xam ne fii ba nga fi dikkee ba léegi na mu ko waxe woon fi barab moo fi nekk defal leen ko mu raxasu xellil leen ko leen ko ne ku ne xam na ne foofa jàmm rek a fa ne yàlla na gën a sax sëriñ bi neena na mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay ñaanal yàlla ci barkeb sëriñ Falilu sa yéene yépp yegg bokk yii nga xam ne it kenn ku ci nekk li jamono di xat-xat bàyyi na la mu jàppoon ñëw yendu si ak moom sëriñ bi nee na gis na ñépp ñamu ci gisut day jàpp ne xataayu xat-xatu jamono rek la waaye kenn ku nekk sa baatin ñëw na ndax sam fii la ne kaddu yooyu yi la sëriñ bi waxoon nim ma ko waxe léegi nag sama xel yeggu ca ak sama mën a jottali waaye lees ci mën a dégg nañu xam ne dañu ko dama koo topp ca sëriñ bi waxoon lu ca mel ne nee nit nanu dimbale jubbantil nu ko ci seen xel yu rafet ndigalama ci dab te ndigal moom masoon na maa dégg ci sëriñ Habibu mi mu wax ne soo mënoo soo manee defal soo mënul defal ko kon daal mi ngi jéggalu sëriñ bi di jéggalu mbooloo mi bu baax sëriñ baa ngi ñaanal ñépp aajo ju faju ci saaxir ak ci baatin nawet bii nga xam ne dañu cee dugg yàlla na nu yàlla wërsëgal ndox mu sottal nawet bi su ko sottalee it yàlla nañu bokk ca ña koy jëriñoo ñii fi ñëw itam tey liggéeye leneen it yàlla na leen ca yàlla fekk ak barke wasalaamu aleykum wa sëñ bi nee mi ngi jéggalu nee doomu aadama yi mel noonu sëriñ bi maa ngi lay seereel ne waa xisbu tarxiya yi jàmbaar lañ lool ci liggéey bi sëñ Youssou Youssou Diop la fi yabal sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Mbàkke Madina Tuun moom itam ñëw nañ fa ak waa këram teeroo nañ gan ñi ci xasida yi ak alxuraan ji waa ahlu xasida ñëw nañu ak waa ko euh, euh, fondation bu Cheikh Mouhamadoul Fadal bi sëñ Fallou Jamil Diop mooy ki ko jiite ak daayira bi dëkk ci kër gi nee dañoo jaxasoo nekk benn nee mën toppatoo gan ñi waaye lin waroon lépp def nañ ko niñ ko bëggee kon nag Mbàkke ñëpp taxaw rek muy sarak yi góor ak jigéen bàyyiwul kenn ñëpp taxaw nañ ci tax bis bi ak soxna yi ak mboolem ñi bëgg sëriñ Falilu ñëpp taxawee nañ bis bi waa police tam seen police seen dem ba tey ñi ngi fi ñoom itam seen taxawaay rafet na commandant bi it moo leen diiri si mi ngi fi ànd ak mbooloom ne lool nag wax dëgg yàlla lu jafe la ndax mbooloo fu ñuy daje fu ne léeg-léeg yëf di rax waaye soom suñ taxawee rek nit ñi di leen gis dootu ñemee raxal nañ daan war a raxale yëf waa presse bi itam kenn desut ñi nga xam ne itam soo waxee ñu siiwal say wax waaye la ñuy siiwal yàlla nañ lu baax nee buñ siiwal lu baaxul kat nee kon nag sant na ñëpp jërë ngeen jëf ngeen baal ko àq na ngeen déwee nag jàmm rek Mbàkke amin amin amin Mbàkke yàgg fi tawér amin yàgg fi tawér amin Mbàkke yàgg fi tawér amin mbokk yi noo ngi fii nag ci kër Serigne Mourtala Fallilou ci ngan gii nga xamante ni ah Serigne Abou ñëw na fekk si ko ci penc mii nga xam ne ñëpp dégg ni ko sëñ Mourtala Fallilou waxee Cheikh Moustapha Fallilou mu baax ma joxoon ko fii pàkk yii ni ko téyel ma ko ba jox ko nag ni ko loo bëgg ci pàkk yi jëlal waaye nag mu jëloon lii def defe def jàkka waaye mu def fi fu ñu jàngee ñoo ngi taxawaak nag doomam ju baax ji nga xamante ni moom la tudd sañ aboo mbakkee mu sañ sëñ Fallilu mu jur rek taxawaay bu rafet waaye xol yëpp sedd na noo ngi ci bis bi sëñ Abo ñëw na ak jàmm fekk na fi mbooloo mi yenn nañ koo berneel ñaanal na ñëpp yàlla nañu fekkee déwén waaye ñu ngi jàkkaarloo sëñ Abo salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bu am solo bii nga xam ne ñëpp teg nañ seen bët ñu jotaay boo xam ne ñëpp xam nañ ne kii ñëwoon tey ci péncum Sëñ Cheikhoul Fadal ci kaw suuf muy Cheikhoul Fadal ci kaw suuf te bu ma waxee sëñ Abul Baraka Cheikhoul Fadal luñ mën a teg baaraam la ndax jëfam ak doxinam ak waxinam bëgg Cheikhoul Fadal ba yemali ko ak dara nangoo liggéeyal Cheikhoul Fadal ba yemali ko ak dara yaakaar Cheikhoul Fadal ba yemali ko ak dara te mu fekk soppeem xaritam di rakkam di ab taalibeem muy Cheikhoul Mourtada moom Cheikhoul Fadal mu doon bis boo xam ne nañ bi ñaane woon ci ñu tàmbale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mu jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin mel na ne sëñ bi ni ko ñaane woon amee na ko ni ndax waajtaay wu yéeme la woon waajtaay woo xam ne si benn semaine rek lay toll sëñ bi jox ko ndigal ne ko danaa fa ñëw egsi fa seet si la liggéey bi yëpp nag teg ko ci suñu loxo ci loxo ci ndigalal ci njiital sëriñ Modou Mbacké moom sëriñ Saliou ak sëriñ Modou moom ak mboolem seen yëpp nag ñu topp seen ginnaaw yàlla def itam nag boobu ak léegi ñu nekk si liggéey boobu ba yàlla def mu agsi muy liggéey boo xam ne ñëpp gis nañu ne mbooloo bi ñu gis fi tey defe naa ne njot naa ne musta dem ci ngan gu mel nii fekk fa mbooloo mu ne mel ci taxawaay bu rafet ci bëgg genre faadal doxe ko ci ci waxin doxe ko ci waxin doxe ko ci jëfin ak yar nag boole ci ak yar bu mat sëkk boo xam ne bi suñu aboo ñëwee ba ni muy demee kenn yënguwul doxin doxin woo xam ne jëfinu taalibe la loolu nag wane na Cheikh Abdou Mourtada taalibe muy ñaan diggante Cheikh Abdou Fadal saa su bi nangul na ndax ak njabootam moom la doxe moom la waxe moom la jëfe mm. ci yar mm. bi dem ci ak dal lañ ko gungee mm. ba mu dem këram kon daal ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant mboolem ñi nga xam ne teewoon nañ fi ci bis bi di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo taxaw bis ba mu agsi fii ndax bisu Cheikh Abdou Fadal bi kon ndegeri déwén rek ñu moom Cheikh Abdou Fadal mu yàgg fi loolu tëwër naan Cheikh Abdou Moutara mu yàgg fi loolu tëwër ak mboolem jabaru Cheikh Abdou Fadal yëpp loolu suñu wàccaay la woon loolu dañu ko boole woon ci programme bi hmm. ah. boo xam ne jàpp na ne bu ci teralee ab sangam ba sangam dana bëgg noonu lay doxee ak ñun te ñun ay hmm. hmm. moom Cheikh Abdou Fadal pas la joxee la la la la joxee boppam Cheikh Abdou Moutara pas ci pas-pas la ànd moom ci yéene bu rafet la ànd moom